you my daughter. You look nice. wow. This the Gucci bomb lady. Wow, you look nice. Wow. Oh, the queen? Oh, yeah. Who? Yeah. The queen. Oh my god. Yeah. Queen? the queen. Yeah, queen. Look like me. Yeah, the queen. queen. yaay kiwit nag mais Pape Cheikh ay. yaay kiwit yaay kiwit ñëwal. Dagger, dagger, das war Gesang. mais mais Pape Cheikh tey tey óot bi dina doy waar tey mais Sénégal gépp Sénégal gépp fi mu ne nii ñun la ñuy xaar yàlla dogal ba ñu nekk ku fa am programme programme am yàqu ñu xaar tuuti rek nañ ñu may rek ñu ñu àggale ak suñu. te ñaanal dama ko sañ. mais sañu ma ko. <laughs> waa génne naa ay sarax moom génne naa ay sarax. xam nga génne buy bëri. moom laa génne démb fi. mbiskit mi. te moom day imposé xale yi ne leen tàllal leen seen ñaari loxo yi. ñu génn këram nag daal ne daa faa bopp nee na yooku boobu da koy faj yooku yooku bi da koy non mais tey américains yi nga fi fekk de man de fi mu ne nii sa man dama sama xaw ma lan la waaye dama dama sama xel daal man daal fi mu ne nii moom ah? dama stressé daal bu stressé loo Sénégalais yow ah non man ah stress àdduna amul mais américain yi ak Viviane ci àdduna amul solo ah àdduna amul solo tët tët tët ay nawleem lañu xam nga nit nag da ngay da ngay da ngay da ngay nawloo ko tolloo <laughs> nawlewaas non nawlaas ko tolloo nawlaas dafa dëgg-dëgg ak ñun Beyoncé yéen a bokk nawlaas billaay ñoom nawloo koo man ñi fi ne di def nawlaasal nga ko séqal tey kon affaire de nawle la lu ngeen am jëlle jël nawle non mais lii kenn attanu gis naa Moussa Moussa Moussa fi mu nekk nii Moussa. Moussa mais Moussa Versailles. mais Versailles de Versailles. non non musaa Moussa bu ñëwee rek coow am na. dañuy jëli ndam bi dañuy jëli ndam bi non Moussa bu jógee rek coow am na l'américain. mais Versailles. mais Versailles tey loo loo loo indi tey loo indi. non a bu ndaw rek. Ah? affaire bu affaire bu. si muy pare ci jaaxal. moo ma jaaxal. man dama jaaxal. man bi ma xoolal. non dem naa place am barke démb gars yi gis nga. maa gën a yokk courage. kenn du moom liggéey rek lay def. am na ku ne. rob yëpp Viviane sol na ko. bi normalement daa waroon a mël fawu rek may ni seen jàmm. <laughs> non pourtant nag tey mël fa rek nga waroon def rek normalement tey mël fa rek nga waroon def. Eh, mël fa rek nga waroon def loolu xel na de gis nga next bi. Ah, Mauritanie laa jëm damay dem ba sama mbokk yi. Oh. ñu utal ma mël fa. sa mël fa rek. mël fa caq yoo xamante ni boo ko sànnee ba sàjj ay jamaar ay or ay mël fa rek nga waroon maye. non bu ko defoon toj fii. sol nga rob yëpp mël fa rek moo ci des. mais mais Versailles du ko ci bàyyi. <laughs> xam nga Versailles. Versailles li mu yor du jeex. Versailles lu mu yor du jeex moo tax Vivi sol na lépp nga fo waaye foog da ngay foog ni sol na lépp waaye li des a ëpp. ah mais dañuy créer rek xam nga chaque ñu ngi si liggéey bi. waaw waaw mooy loolu la. collection bu bu bees ak jeex na ah nekk de ah. waaw waaw ay jëlee de waaw. waaw type affaire yi waaw nga génn ci man. waaw dem cinquième. waaw naan la ni wën ni wën ni wën ni wën ni wën ni wën ni wën Ah. sama doom jàng Sénégal namm nañ la nag. maa leen raw. eh Sénégal namm nañ la maa leen raw. asalaamaaleykum yeewu leen rek de retour. yeewu leen midi plus. midi plus. <laughs> ma ne mais yeewu leen nga doon njëkk rek. yeewu leen fanaan leen après ñu dugg waaw te yow da ngay def yeewu leen fanaan leen yendu leen ak jàmm. waaw ci diggante bi mel leen naan leen ataaya. luul luul leen ma waa ñële. vraiment daal chapeau baax Sénégal na ma ne. bientôt bientôt bientôt bientôt. na ma ne la de. bientôt incha leen raawoo maa leen leen raawoo. mais maa leen raawoo. mais maa leen raawoo. sedd na mais bon xam nga instant bi waxtu wi. mais waxtu wi jot na de. waxtu wi nag stress bi mu ngi commencé jóg. non stress. mu jóg de. man moom dama boobu ba tey soo gisee parce que démb ba tey waxuma damaa <laughs> So. This the Gucci farm lady one. Nice. Wow. Oh, the queen? Oh, yeah. Cool. Yeah. The queen. Oh, my God. The yeah. Queen? <laughs> the queen. Yeah, queen. Look like me. Yeah, the queen. <laughs> yeah, queen. <laughs> Mais pas ça. Yeah, queen. Yeah, queen. Yeah, queen. Ñëwal. Dëgg, dëgg, dëgg. That's my. Gisant. mais mais Pape Cheikh tey tey óot bi a doy waar tey mais Sénégal gépp Sénégal gépp fi mu ne nii ñun la ñuy xaar ku fa am programme programme am yàqu na. ñu xaar tuuti rek nañ ñu may rek ñu ñu àggale ak suñu. te ñaanal dama ko sañ. mais sañu ma ko. waa génne naa ay sarax moom génne naa ay sarax. mbiskit ak soow mi. te yi ne leen tàllal leen seen ñaari loxo yi ne waaw. daa faa boppam mais yooku boobu da koy faj yooku yooku bi da koy. nga fi fekk man ne man dama sama xaw ma lan la waaye dama dama xel ne nii moom dama stressé loo Sénégalais yow. ah non ba stress àdduna amul mais américain yi amul solo ah àdduna amul solo tët tët tët ay nawleem lañu xam nga nit nag dangay dangay da ngay da ngay da ngay nawloo koo tolloo nawlewaas <laughs> non nawlaas koo tolloo nawlaas te ba man ñi fi ne di parcelle <laughs> naw laa suma ñeneen ñi yow nag ñi nga naw laa sel nga nga ko séqal tey kon affaire de nawle la kon ñu lancé ko <laughs> lu ngeen am jëlle jël nawle <laughs> non mais lii kenn attanu ko. non gis naa Moussa Moussa Moussa fu mu nekk nii Moussa. Moussa mais Moussa Versailles. mais Versailles de Versailles. non non Moussa Moussa bu ñëwee rek coow am na. dañuy jëli ndam bi dañuy jëli ndam bi non Moussa bu jógee rek coow am na l'américain. mais Versailles. mais Versailles tey loo loo loo indi tey tey loo indi. non affaire bu ndaw rek. affaire bu affaire bu. si muy pare ci décembre. moo ma jaaxal. moo ma jaaxal. man dama jaaxal. man bi ma xoolal. non dem naa place am barke démb gars yi gis kenn du moom liggéey rek lay def. am na ku ne. rob yëpp Viviane sol na ko. bi normalement daa waroon a mël fawu rek may ni sol na